dootul mën a kii waxoon ngeen ko fi na leen waxante rek dëgg te yàlla tax Sénégal man jomb naa di wax loo xam ne ëllëg damay dar sama gémmiñ léegi nag liverté wér mooy dama areeraat tuuti ci li ma waxoon mooy dama ne leen woon bu ko neexee na tëddal noppam jëmmam ah bon waaw président Ousmane Sonko bu ko neexee na tëdd noppal jëmmam képp ku yàlla dogal tayit maa ngi jox sénégalais yi exclusivité d'accord mbir a ngi jóge ci président Ousmane Sonko ci ay fan yu gàtt te sénégalais yëpp danañ ci jot te nouvelle bu neexee noonu mësta tàbbi ci biir noppi sénégalais yi. ah maa ko wax de. te ci président Ousmane Sonko lay jóge nouvelle. nouvelle bu neex a ngi jóge ci président Ousmane Sonko tàbbi si ci biir sénégalais yi te nopp patriote bu mu dugg mën ngaa jóg fecc te xam ne saa boroom kattanal nañu te may nañu ndam te lii man maa ko wax mbir a ngi jóge ci président man Sonko di xibaar bu neex ci biir patriote yi. wàllu seet nga gis. bul ne ma wàllum seet lu ma gis la nga man lu may seet nga naan ma wàllum seet wàllum gis ah ma ca kii ba amaguma amaguma visite li ngay wax ni <laughs> ba man koo seet yi eh, eh, eh, wàllu yu suñ borom bi. d'accord seetee gu ma ko di. d'accord xam nga benn mbir damaa wax sama benn xarit ma ne ko Sonko dafa def ñett. Mhm. Sonko. Mhm. dafa def ñett yoo xam ne doy na sëkk ci ndamam. mooy. Sonko dafa simmi. ok ba noppi dafa solal. mbaa yaa ngi may dégg. bu baax yow rek laay déglu. ba <laughs> rek laay déglu. <laughs> tax Dijé Dijé yéen mérité woo Sonko nag baal ma ci wax ji. d'accord mérité woo leen Sonko. ñett yi dafa simmi. Mhm. ba noppi dafa solal. ba noppi dafa fale. xam nga ñum fal waxkatu dëgg yi ci réew mi nga xam ne bu asamaan si doon wàcc sax dañuy wax dëgg ñu bis ni ki tey muy ay juge muy ay procureur falu nañ ci réew mi te doodu ñu wàcc te dañuy dugg ci histoire ba àddunay tukki laaj ma ñoom summi kàccekat yi d'accord kàccekat yi nga xam ne ñi ngi wax mbir te mu wóor na leen ne lii ñuy wax du dëgg ba seeni sët histoire da koy bind xam ne ñii ay kàcckat lan d'accord kii nag ñett yi nga xam ne dafay ñëw mu feeñal ba noppi fale ba noppi simmi nag defkatu ñaawtee fi moo tax tey buñ naan état de droit état de nangam waaw xanaa xanaa Sonko moom moom ay droit am fu ngeen ko teg Sonko dañoo bafoué ay droit am ba noppi dafa tàggatoo ak sénégalais xam nga ci ñaar lool li tax ma gën koo jàpp ci ñaar Sonko bu doon yàmbar man banaa ko dane on a négocié pas avec un pistolet sur la tempe ma ne ko oui c'est ça la réalité le précédent on ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe ma ne ko au oh, beau gosse c'est le beau les garçons mais il faut accompagner ceci en palais tout le peuple sénégalais que doo ñëw teg sama bopp fetal ba noppi naan ma kaay ñu négocier ci jalagi lan te tey ñi jalage woon tey ñoom ñi ngi xam daal ku ne xamagul foo jëm d'accord booba booba laa déglu wax ji ma ne kii kii du am yambar te kii ku ànd ak moom wallahi sa yaakaar du tas ah yàlla na sa yaakaar tas yow de da nga ànd da nga. Eh, eh, non dama bëgg bul ne ma non. non dama bëgg non non wax ji wax ji wax ji li may wax dafa leer. tey nga gën a am yaakaar donc après li xew. yëpp tey nga gën a am yaakaar. ku ma sa ñàkk yaakaar ba naan ma tey nga yow yow yow xanaa nag. man pouvoir de cassation boo xamante ni cassation ak mbiri Sonko nekkul ci ay këyit. wala yéen nag da ngeen a bëgg man ma simbeeku. d'accord mbiri Sonko bu nekkoon ci ay këyit kay cassation kase na ko. d'accord tey ndamam yi mu tegale ba adduna yëpp xam ne mi ngi ki ndam lii de lañ doon ñaan yàlla léegi nag la ca des moo moo moo li naqari lépp paase nañ ko la ca des nag mooy ay bànneex léegi nag yéen li ngeen di ku ngawti ngawteeg di tappet ak di gof goflu ak di ragar-lagar man nekkuma foofu déedéet man nekkuma ci loolu xam nga ci lu ma ne fi ma teg sama tànk laa ci teg ta du ma ci yuqet c'est-à-dire tey nga gën a dëggal sa bopp ci li nga waxoon. tey laa gën a dëggal sama bopp ci ànd ak président Ousmane Sonko benn. ok tey laa gën a dëggal si sama bopp. waxuma la damaa jëlale Sonko tey laa gën a dëggal sama bopp ci joxuñu président Ousmane Sonko te loxo dina jëm gémmiñ de gars mbir mi dajjeeku na de yaakaar yi tas na. alors euh, euh, leneen yaakaar yi tas na. yaakaar yaakaar yi tas na. gaa ñi seen yaakaar yi tas na. maa la ko wax de li ñuy foog li ñuy def lépp dara du ci am. c'est dommage que tu es nga naan ma c'est dommage actuellement nii buy wax buy wax buy waxee nii ci Ousmane Sonko parce que euh, on entend na souvent euh, di wax ne. <laughs> par exemple Serigne Mara. Mhm. quand même dafay euh, waxu partisan lay wax parce que li muy wax bëgg gu mu bëgg Ousmane Sonko wala li ngay wax looy seet ba gis ko la soo koo révélé. man li may wax dama koy seet première ba gis ko. d'accord deuxième mooy man damaa bokk ci patriote yi. te képp ku baax xam nga patriote mooy lan mooy ku bëgg sa réew ku bokk ci ku bokkul ci patriote yi te balaa ngaa mën a bokk Pastef da ngay am Pastef waa sëñ bi na leen wax benn benn mbir mooy euh, ex Pastef est-ce que xam nga benn mbir mooy <laughs> moo tax damay ragal ñu tasaat ex Pastef baa duñ ko tas ex bi ñu tas ko waaw ok ex passif de laay fi ne ndax taxawal passif ex passif ñëw ëpp doole passif lii de yàllaa ko man kon mën nañoo tasaat ex bi quoi. ex bi moom laa bëgg <laughs> nañ tasaat ex bi double ex moo tax ñu ci bari ay bukki lañ yu sàngoo deru bëy ñoom ci passif lañ bokk ba noppi bëgg a tas passif. lenn dinaa la ko laaj parce que xam ma taxee wax dëkk bi dina yëngu de waaw. xam naa ni sax xam-xam màcc na jëm ci. Mhm. wàllu seet. Mhm. Euh, loo wax itam suñu borom. Mhm. dogal ni loolu dafa am allah kulli aal. yàgg nga ñu wax ni Ousmane Sonko dafa am. daju kilifa may xeeñ sax. ma maa ko wax de. lan mu ngi lay xeeñ. daju kilifa gu mag mi ngi may xeeñ ci jamono ji may waxee ak yow man nag bëggu tooñ bëggu maax lu ma xamul. niisaaw ak seddaay wii di dugg ci ndakaaru dana faatu bakkanu kilifa gu mag te loolu moo am de yàlla ma ko wan te man li may wax nii bind leen denc danañ ci yegg li may gis ci seet ku yàlla bind mënoo koo gis man ci jamono jii may wax ak yow nag kum neex nag man ngaa wax leneen. d'accord baa xam nga benn mbir. mooy man boo gisee lu baree baree bare du ma tëb di ko wax. Mm. damay bañ ji tooñ léegi. Mm. damay bañ ji tooñ. coow lu fi xew bu ma génnee na leen jeexal naa coow li coow li day jeex wala du jeex. wallaay day jeex bu ma gisaatee mbir mii daw di ñëw te li may gis lépp ci senegal bu ma ko doon wax àdduna tukki li may gis ci seet bu ma ko doon wax àdduna tukki man dama koy gis ba dama koy ragal sax wax ñi ma jege dama leen di wax loo xam ne wallaahi boo amee fit ñu jàkkaarloo mun naa laa wax wax wax ba dugg sa caaya ji alors sama question moo nekkoon euh, ni euh, yàgg nga wax yow. dana wax ay wax yi mhm. donc yow yaa njëkk a ak euh, ñun wax nañu Ousmane Sonko am na ñu ànd ak moom boobu kenn xalaatu ko woon. kenn xalaatul woon ni